ñu comp as ci li gën a fës ci yéenekaay yi ubbil ma yéenekaay bi maa la ko wax de jigéen ña fare ca bundung waaw ñoom daal nee nañu ña ngay waaj a génn ngir rek dem ca mbedd ya ngir fësal seenu naqar ci nawek ñoom nag ñoo ngi woowaa nawek ngir mu indi saafara ci ñàkkum ndox mi ci diwaanu bundung ndax ñoom sonn nañu lool du loolu ñoom nag dinañu rek wàcc ci mbedd yi ngir ñaxtu déet gar mi ëpp naa def de jar na ko kay ñoom ne nañu bu ñu gisul lu ñu xam dinañu amal ab doogaanu ñaxtu ci jàmm maanaam peaceful protest ndax nag ne na nawek dañoo seetaan ndeysaan ndax ay at a ngi ñoom ñuy dund rek a ñàkkum ndox Nafi Soli eh, di ab maire nekk ca bundu moom mi ngi laaj na lan la waa Bundung def ba tax ñu waran dund jafe-jafe ci wàllum ndox eh, ci lu jege fukki at nawe guy laaj boobu mu teg ci ne ndox lu am solo la ci dund dundinu nit ñi waaye ñoom dañu leen ko rek daal di xañ mu teg ci ne ñàkkum ndox mi lu yàgg la ca jamonoy nguuru Yaaya Jame la woon ba nége ni mu xamle ne ñoom dinañu rek génn ñaxtu ba àddina sépp daal di leen dégg ndax nag mënuñoo wéy dëkk ci ñàkkum ndox Binta Camara moom di laaj ba diggante Camara mu teg ci ne nawek xamul liggéeyam ndax bu ñu xamoon seen liggéey jafe-jafe yu bundu di dund ci wàllum ndox saafaro na bu yàgg mu daal di xamal ne ñoom ba tey dañuy rek daal di rootaani ndax loole nag lu metti la mu teg ci ne ñoom weer wu dee ñu fay seen woto bil ca nawek ñoom nag la ñuy sàkk mooy saafara lu dul loolu ñu wàcc ci mbedd yi ngir wane seen naxar ubbil ma yéenekaay bi nguur gi di xamle ne seen employment policy bi yéene gi mooy wutal am xëy lu toll ci téeméeri junne ak juróom fukk ci ay ndaw Paba Jammeh di ab senior ci bànqaasi nguur gi yor wàllu jaay maanaam ministre of trade moo xamal yëglekaay bi ne nguur gi ci seen employment policy bi yéene gi mooy wutal lu toll ci téeméeri junni ak juróom fukk ci ay ndaw am xëy ci réew mi yépp ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi kàddu ma nga ko waxee ca kerewaan ci ab engagement bu waa tekki fii doon amal ak way jëriñu yi boobule programme ñoo ngi ko dooroon ca atum 2019 ci at mile la war a rek jeex tàggat nañu ndaw ñu bari ci wàllum njaay ak jox leen jumtukaay ak dooleel leen ci ay rek xaalis ngir ñu mën a amal seen bopp ak itam réew yi ci yaakaar ne mën nañu fee rek daal di tekkee bañ a daal di jël gaal yi ubbil ma yéenekaay bi njiiti réew mi ñibbisi na di jiiñ la xewoon Amérique muy ña doon ñaxtu waaw njiiti réew mi nee na ñooñu du ñenn ñu dul waa UDP mu teg ci ne ba tey UDP ñu nekk ci ginnaaw ñiy waajal doogaanu ñaxtu ci weeru novembre 11 muy doogaanu ñaxtu bi coalition of progressive di waajal moom njiiti réew mi ba mu wàccee ca naaw bu Banjul maanaam Banjul international airport ci waxtaanam ak taskatu xibaar yi daal di wax ne am nañu waxtaan wu am solo ca New York ak na ay tuuti rëq-rëq yu ci am ndax am na ay gambeen yu doon ñaxtu ci sama kaw waaye nag du ñenn ñu dul waa UDP UDP ñooñu rek nekk ci ginnaaw mu teg ci ne ñoom ñoo amaloon sax triyees jot na mu daal di xam ne le moom woo na ñëpp ngir rek ñu ñëw liggéey ak moom mu teg ci ne wuntam yi ubbeeku na te nag du ay ñaxtu mooy rek indi saafara ci mbir yi faaw rekk ñu bennoo ngir suqali réew mi ci wàllu ñàkk kaarange gi njiiti réew mi daal dina ci àddu wax na ci ne dina waxtaan ak njiital kaarange gi ngir rekk ñu nas ay pexe ngir indi saafara ci jafe-jafe ak kaarange gi ci réew mi ndax nag nee Gambie réew réewum jàmm la te nag waruñoo rek a yàq loolee faaw rek ñu gën koo sàmm ngir rek jàmm gu ñu ñëpp xamee ubbil ma yéenekaay bi jàmbur bu busumbaala bi di ñaax njiital alkaati yi maanaam inspector general of police ngir mu bàyyi ñi bëgg a amal peaceful protest moom jàmbur bi daal dina xamal IGP ngir rek mu jox pamit coalition of progressive bi bëgg a amal ab doogaanu ñaxtu ci weeru novembre ginnaaw ba leen IGP gàntale loole di seen sàkkuteef Mouhamed Kanté di jàmbur bu busumbaala moo ngi rek ñaax IGP ngir rek ñaxtu ci jàmm mu teg ci ne réew mi weesu na fi ñuy rek tere doogaanu ñaxtu neen nag police li mu war a def mooy bu bis baa mu daal di rek wutal leen ab kaaraange ba rek ñu mën a def seen doogaanu ñaxtu ci jàmm ba tey mu teg ci ne ngir rek daal di tere doogaanu ñaxtu di ko layee ab ñàkk kaaraange ci réew mi nee na loolee yéenewul maanaam ndax gàmmee réewum jàmm la ubbil ma yéene bi docteur Mamadou Lamine eh, gi ngir rek mu tabax ab waax wu yees ca baara maanaam poot mu teg ci rek daal di gën fuuf lu waay waxati waxati soo gisee nen neneen a ngi kon gar mi tëjal